ak moom ku ne yaa ko dund yaa ko vivre pendant quatre mois du benn fan du ñaari fan depuis septembre ba mën nañ ne ñu ngi ci janvier donc chaque jour on est ensemble euh, mu nekk loo xamante ni presque c'est une famille donc euh, ñu daal di dundandoo ay moments yu bari aussi waaw parce que ku ne formation en développement personnel c'est-à-dire que dinañ traiter ay problèmes familial dinañ traiter aussi beaucoup de choses yoo xamante ni c'est douloureux waaw ah, c'est douloureux et que am hauteur aussi euh, <laughs> nee na naa naan café <laughs> pourtant defaroon naa café dama koo fàtte ah, xale bi xel ma sama kafe gi yow <laughs> ok Paul merci beaucoup ci conseil bi yegsi ku ku nekk ci ligne bi na yegsi salaa sama café boobu dama ko xellil waaleykum salaam wa ma ko si kaas kii Sala gaaw ah, gaaw ci café Sala kaay kaay la. sama café gi ma defaroon. waaw nan nga café kay pare na defal ma suukar rek xel ma nga tàngal ko nag mu tàng. mu ngi noonu tey tey tey damaa am lu ma neex na ndeysaan tey damaa am sama élève 5D xam nga rek suñu dëkk bi daa gaaw a guddi. ñëw jël si diplôme. ñëw jël ñun waa waa France. waaw eh, waaw sëy foofu rek. Eh, gis nga ah. loolu loolu kay lu loolu. non bi neexoon na macha allah tey moom. yenn bu toj lañu am fii. en loo gis daal am na am na am na am na am na am na lu jiitu. li moom. mënatu leen koo dabaata. déedéet maanaam zéro un zéro dóor nañ ñun rek ñoo fi def formation. formation bi online ñu dem. gis nga. <laughs> ah non maam si maam Penda ruube ruube yi bàyyi bàyyi ko senk de dégg nga ok ba wàccal gars yi leen. <laughs> non non faaw da ngay ree ba tas. waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñu ngi waa waa 5D yëpp. ñu lay fay. Mhm. di di nuyu coach boobu ba léegi ñu ngi dugg ak a génn. Mhm. ci ligne bi. Euh, di wax ni formation. 5D muy cinq dimension daanaka mën nañu wax ne dimension bi sax romb na tur bi lañ la ñuy wax mhm. euh, parce que nit li wax naan nit ki booy ñëw di dugg ci mbir mhm. dangay ñëw ak ay ak ay attente da ngay mhm. ñëw ak ay yaakaar yi nga xam ne tey doo gis kenn ku participé ci 5 da waxul ne euh, formation bi dépassé na ay attente euh, mu nekk loo xam ne mun naa ne xay na satisfaction mënu romb loolu damay damay damay faral di wax rek kenn ku nekk dafa juddu ba màgg ba yem ni mu yem soog la rencontré ci dundam. wallaahi ndeysaan. waaw mais mu nekk loo xam ne tamit euh, euh, benn regret amul amu ci. au contraire danga naan fan laa nekkoon ba xaw ma ba xaw ma mbindeef mi. ndax li nga xam ne di ko di ko apporté ci dundam ak impact bu positif bi nga xam ne dina dina am aussi ci dundu nit ki. Mm-hmm. Euh, nit nag bu njëriñ amee ci dundam dina laal lépp luñ ko concerné dina laal njabootam dina laal jëkkëram dina mhm. laal famille am dina laal ay xaritam dina laal sax ay dëkkandooram mhm. euh, comme ni ko kii génn léegi waxee nafisatu mhm. euh, dem aussi ba impacte li nga xam ne mooy sa vie professionnelle euh, financier et consort lépp daal li nga xam ne moo moo moo moo xew cinq d kenn mënu koo joxe ci benn explication nii nii nii. Mhm. mais daanaka li ñu tënk nii rek dafa dafa dugg ci àdduna doomu aadama bi. Mhm. ñu ñëwaat ci beneen vole boo xam ne mënul ñàkk ci dund nit bi wax ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. muy volet spirituel bi. jullit bu nekk mënoo dund taw xoo ci sama diine. Mm-hmm. waxoo ne man jullit laa sa jullite am loo xam ne war na ko représenté ci yow ci sa dund waaye ci lépp li nga xam ne mooy sa quotidien aussi mm-hmm. euh, loolu boo ñëwee 5D aussi da ngay gis ni vraiment dañ la ci yebal yebal yebal yebal ba da nga naan man fan laa nekkoon damaa juddu ci nekk jullit euh, waaye sama diine est comprendre naa ko mm-hmm. ndax la diine bu bu bu authentique bi nga xam ne di nga ko fa di nga ko fa amee. Mhm. waaye yow mii di coach aussi nga xam ne yow yaay euh, le fondateur euh, du Firdawsi coaching. Mhm. nekk kër goo xam ne kërug euh, taataanu xam-xam la waaye kërug découverte de soi lay doon ci doom aadama bi. li ñuy wax nag kook léegi xaw ma kan moo ko doon wax nit mënoo bëgg doomu aadama yi te bëggoo sa bëggoo sa bopp. waaw vraiment ndax balaa nga naan naam day fekk nga nekk. nga fa. Mm-hmm. respecté nga sa bopp te xamuloo aussi yow yaay. Mm-hmm. yow yaay kan. lépp looy joxe daal day fekk nga am ko ba pare mun koo joxe. wallaahi. Mm-hmm. kon mun nañu wax ne parfois doomu aadama bi dafay dund sax ci moo xam ne euh, mun nañu wax ne du du du réel dafa mel ni day dund ci rêve. Mm-hmm. inconscience. waaw inconscience bi muy dund ba bés bi ngay te boo duggee 5D day mel dañ lay xëpp xëppal ngay ngay xool. dañuy wax ni la majeure partie ci nit ñi 80 pour cent ci nit ñi ci inconscient la ñuy dund seen subconscient moo leen di piloté rek ñuy def. waaw 80 pour cent xam nga loolu loolu loolu dafa bëri. waaw ah, dañ nit ñu bëri mais mais mais lu lu lu lu compréhensif la parce que xool feneen dañ naan la du du du dëgg. Mm-hmm. waaye tey ñun. te loolu am nañ ci am nañ ci preuve parce que léeg-léeg nga yëngal ñenn ñi sama classe gi xam nga si sumaan yi xam nga après ñu demaat ñëw mais da ngay xam ne. li ciy tegu rek mooy nga nga nangu boo bëggee dimbali sa bopp. pour mën a mhm. aller de l'avant. Mhm. vraiment mu nekk formation boo xam ne bu capital la ci dundu doomu aadama bi. Mhm. Euh, xëy na luñ fi wax rek fekk nañ ñi fi jaar wax ko ba pare li ñuy wax rek mooy ñëpp ñiy romb ak ñiy dégloo. rek képp kuy suivre cinq d loo loo mun def nga xam ne yokkute lay doon ci yow dama naan ku dégg kàddu yi sax bajaaree jaaree ci ñun sax tiyaabu jooju dinañ ci am parce que mm-hmm. dañuy xam ne alaakuli al njëriñ rek nga fay jëlee mm-hmm. munoo fexe fexe fexe ba doo fa am njëriñ boo xam ne dina la jëriñ yow sa àddina waaye jëriñ la ci sa diine jëriñ la ci sa pas-pas jëriñ la ci sa mm-hmm. lépp lépp lépp lépp ci sa dund Euh, kon bu ko kenn caaxaanee bu kenn jàpp ne tamit euh, jataay la boo xam ne dañ fi nekk di di di di waxal nit ki lu baax déedéet mm-hmm. li ñuy wax yépp li mu jàngale la moom jëmm ji def ko ci ay nit mu def impact ci sunu dund yi ñu ñëw seedeel ko te jëmm suñu borom rek tax wax ne aussi vraiment coach ñu ngi remercier sa équipe yépp ci jàppale bi ñu lay jàppale aussi ci formation yi mm-hmm. ak euh, oustaz yi yow itam mention spéciale parce que gis nañ ñi nga tëddee jaaxanaay euh, mm-hmm. accepter ñëpp am tolérance aussi ci nit yi waaye euh, léeg tamit nga gis ni ngay dimbali ñenn ñi mm-hmm. ñu mel ni waa ñoom groupe rigide googu ñu yéen ma gën a xam seen bopp ak waa tiim lepp leppal ni nga leen di secouer ba nga xam ne kenn ku nekk boo doon nelaw sax di nga mhm. yeewu def prise de conscience ci sa dund euh, waaye def prise de conscience ci li nga xam ne moom ngay dund ba nga xam ne dina la permettre vraiment nga mën a dut baaraam ci li nga ne waaye mhm. xam fi nga jëm waaye xam aussi li lay xaar te li nga passé aussi nga accepté ko pour mën a aller de l'avant mhm. vraiment ñu ngi ñu ngi lay rëb defal la sutura may euh, firdaw si succès mondial boo xam ne ñun ñëpp dina nekk suñu fierté parce que li ñu bëgg rek mooy yëf yi dem ci kanam euh, lii nga xam ne opportunité bi nga xam ne saisir nañu ko ñu ngi yéene ñëpp tamit ñu jot ko ba am ci liñ ci am wala lu raw sax ñun liñ ci am asalaamaaleykum masha allah waaleykum salaam wa rahmatullah kontaan nañu lool si waaleykum salaam wa rahmatullah ummi umi ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di tax nga yegsi ñu ngi lay fay day am différence avant nga xam vision nga koy xoolee beneen beneen sens nga koy xoolee ba. Mhm. yow même nit ñi sax boo leen gisee sax dañ leen di comprendre. Mhm. ndax tey boo xoolee ko ak euh, volet bu nekk bu bu ñëw rek nga ne bii moo daal. Mhm. surtout si volet bu spiritualité bi nga yi bi nga xam ni taw xiit bi te liggéey ak sa borom. loolu mooy loolu moo nekk loo xam ne benn. ummi fan la la Firdaws su fekkoon ak fan nga yegg fii nga toll nii. waaw man mhm. euh, au début doon naa ko suivre. Mhm. vidéo yi laa doon te vidéo yi laa doon suivre. te mhm. yi. après bi ma amee yow ak benn coaching privé ci nga ma dugalee gratuit ma doon suivre. après ci laa duggee formation bi. mais au début moom nekkoon naa ci yenn solo solo yoo xam yenn jafe-jafe yu metti sax yu ma doon dund sama biir comme ñun en tant que rek. Mhm. yow da ngay dugg si yenn relation yoo xam ne yu metti yu souffrance. mais mhm. boo comprendre sens bi. Mhm. yow da ngay dox relation boo dugg di mbëkkanteeg euh, nit ki. boo comprendre yow pour personnalité ak yow nga comprendre sa personnalité alors am na différence yow ngay jooytu am ay déception yu metti mais boo ñëwee ak développement personnel yow da ngay pointé du sa bopp boo ñëwee le fait lépp si sa bopp ah, ah, loolu mooy li nga xam ne mooy li ma neex du développement personnel. Mm-hmm. sa bopp. mais tu prends ta responsabilité. waaw kay ñu ngi loolu sa responsabilité ngay jël comprendre. Mm-hmm. comprendre situation bi nga xam ne lépp li nga doon accuser comme ñun rek ak euh, suñu blessure rek rejet yi. bu fekkee mm-hmm. métit bi ñuy am am di day mm-hmm. nekk loo xam ne lu koy noppiwaay nekk femme boo xam ne timide calme tout le temps yaa ngi sa coin mm-hmm. boo àjjee yaa ngi fi femme te naan dama am problème communication <laughs> dem passé l'avant ma ñëwee noppiwaale ko kenn du loolu daal laa mais boo ñëwee bi mhm. li ngay da koy appuyer sans tabou xam ne thérapie laa lay doon da ngay libéré wu mhm. nag sans sans sans boobu laa nga xam ne ba mhm. li nga xam ne lépp loolu laa nga xam ne mooy li ma neex comprendre sama bopp ak euh, li ma xam ne lii blessure bi li yàlla moom ko teg ko war a accepter kii tamit bu la ci yoon ñeen la mel da nga ko war a accepté ak ki nga xam ne personnalité ma tam aussi da nga ko war a accepté mhm. loolu mooy li nga xam ne lu neex lu ëllëg ñu aussi si loi yi loi yi aussi nga comprendre boo comprendre loi bi nga xam ne lépp lii la yàlla def lii da nga ko war a accepté mais boo demee ba comprendre ko yow tey doo doo dem da ngay dem ba doo sonn mhm. te li ma gën a neex ci say waxtaan nit ki jaam yàlla à chaque fois il faut nga la faire prise à chaque fois kàddu boobu boo koy day nekk nga xam ne li ma neex accepté nga lâché prise nga xam ne danga doon. lan mooy lâché prise ummi. ma gars yi moom développement personnel moom dañuy topp lâché prise lâché prise rek waaw léegi nag lâché prise moom mooy <laughs> jël expérience femme yi. parce que ñeneen ñi ma ne non non kon man nga mooy nga bàyyi yàlla mbir yi mu déroulé ko ni mu ko neexee nga wóolu yàlla ci sa dund ci sa destin. bàyyi lépp. Mhm. bàyyi lépp ci loxo yàlla. nga xam ne yàlla lu mu def rek noonu la yàlla du juum loolu mooy lâcher mooy tey su may ut liggéey maa ngi ut liggéey ma am ma bañ a am ci yàlla dépendre su ma amul mooy looloo gën ci man su ma amee mooy looloo gën ci man ba tey kon li yàlla def naa pare pour recevoir ko pour accepter ko. acceptation ça ne pas dire que dama d'accord ci mbir mi ndax nit mën na la tooñ tooñ bu metti ñu la accepter ni ñu jàpp ne accepter mooy d'accord naa fekk na accepter ça ne pas dire que dama war a d'accord mais accepter mooy bàyyi naa yàlla mu dérouler situation bi ni mu ko bëggee en fait dama nekk situation boo xamante ni dafa metti maa ngi nager contre courant maa ngi bëgg a forcer situation maa ngi insister bàyyil ak yàlla sa destin mu def ci li ko soob yow nga def li la war jeex na tàkk et tu avances et tu ne plus loolu mooy miracle acceptation. yëpp jaar yoon rek jàngal na yëpp ki nga xam ne jaar na sa boobu am na lu lay jàngal. Mm-hmm. loolu lu ma jàngal la lu ma ancré sama mm-hmm. ma comprendre mm-hmm. loolu. la yàlla dogal. mais fi ndaw si moom nekk na loo xam ne lu neex macha allah ñu ci ñu boole yëpp. thérapie couple yi ak aussi ci wàllu solution yi. Mhm. yow mi nga xam ne sax bu booboo sax ci mariage yow di li nga préparé te li nga comprendre beaucoup de choses. même si éducation yi des enfants yi éducation yi des enfants yi man ak bu ma nekkaan fii suñu kër ak xale yi am na benn beneen façon bu ma daan comporté ñoom gën a nuyu ko. mais après tey pour éducation des enfants yi da ngay comprendre da ngay am benn compréhension ci xale yi. bu ma nekk di wax xale yi. beneen façon tur gi sax mi ngi loolu mais ñeen ñi boo leen ko comprendre yow mi xam. après da ngay na solo trop macha allah. sant yàlla. ñu ndax 5D moom ku ko allah ñooy dugg chaque année doo doo bëgg allah wallaahi waaw da ngay bëgg di def di allah. Mm-hmm. ngay ñaanal affaire euh, en présentiel nekkul loo xam ne lu mag lay doon. Mm-hmm. nit bu ajusté. Mm-hmm. macha allah. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah sama turu site yëpp Firdaws la muy samay site internet muy euh, réseau yi partout Firdaws coaching foo ko def euh, di nga gis sama tur donc waaleykum salaam wa rahmatulah. Anta yegsi ngi lay fay nuyoo yëkkatil baat bi. maa ngi nuyu waa 5D yëpp. waaw yegsi macha allah. sa micro bi dafa kii dafa suufee. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg léegi waa ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di la yegsil yegsil ak jàmm. Euh, macha allah formation yi moom. Mhm. Euh, vraiment dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax. Mhm. ndax fu ñu jëlee comme ni nga wax rek ak moment bi ñu lay fekk moment bi nga def bi. Mhm. Euh, day mel ni comme formation bi mu ñëwee c'est le bon moment daal. bi bu muy commencé ñu fekk man maa ngi perte sama yaay sama yaay mi ngi nekkoon ci formation bi aussi. defoon fi deux ses kii deux mhm. donc euh, mu nekk moyen difficile. Mhm. mais formation bi tax na ba ma nangu ko ba ma am acceptation mu nekkoon loo xam ne ñu koy jàngal. Mhm. Euh, nangu dogal xam ne lépp lu ñëw yàlla moo ko dogal donc mu facilité ma trop euh, moment yooyu noonu. waaw donc mu nekkoon moment yi nga xam ne que na si man. difficile si samay frères. ak samay sœur. Mhm. mais euh, formation bi la fekk ngay wax la nakari la fekk nga comprendre. Mhm. Euh, loi yi fu ñu ñëwee di wax acceptation di wax lépp nga xam ne que suñu borom daf ko tracé suñu àdduna avant. Mhm. donc loolu yëpp da tax dafa yombalal euh, maanaam moment boobu na mu doon dund. donc nga koy partagé ak formation bi di ko ak waa 5D. donc vraiment daf lay yokk jom. dalay yokk courage. Mm-hmm. ndax ñëpp ku si am naqar wala ku si am bànneex ñëpp koy bokk ak yow. donc mm-hmm. loolu aussi mu nekk vraiment lu ma neexoon. Mm-hmm. ma ci sant ñëpp vraiment di si gërëm ñëpp di si jiital coach. Euh, formation bi aussi ba ñëw fekk na maa ngi sonn si année de thèse donc ne que ku nekk mën na si dugg. nekkul koo xam ne que dafay jàng wala koo xam ne dafay liggéey wala koo xam ne que dafa nekk si ay doomam. ñàkk jot boobu noonu ñuy wax soo ñëwee rek da ngay fexe ba am jot ba mën a concentré si formation bi. ndax euh, may woon si analyse. te yaa ngi sëy tamit boole ci loolu. dama voilà dama ngi sëy donc si biir formation bi la soutenir mhm. après continuer woon encore euh, bi. waaw mhm. euh, am benn projet wala dafa am ci lu ma nekk lu ma ko mën a boole ak formation bi. Mhm. loo mën a boole rek lu nekk mën na si ànd daal. te boo fi ñëwee tamit nga fekk fi ay. page bu nekk compte page bu nekk. Mhm. donc di fekk suñu ay maman suñu ay yaay suñu ay mag suñu ay rakk. Mhm. donc loolu yëpp dañ siy jàngaat yow aussi si ñoom jàngaat si seen parcours. Mhm. jàngaat si seen vie euh, mu nekk genre thérapie boo xam ne kii danga koy am. ba pare aussi euh, âge yooyu noonu âge yooyu noonu. Euh, da nga siy jàngaat aussi yow sa vie bopp donc da nga si nga siy jëlaat ay leçons. donc thérapie boobu noonu aussi dafa nekk tamit loo xam ne dafa importante. dafa mhm. dafa dafay neex aussi. Mhm. thérapie collective la. voilà. Mhm. c'est très bénéfique. c'est très bénéfique. c'est très bénéfique ba pare aussi soo xoolee ñoom seen parcours nga gis ñoom ñu wax fu ñu jógee ak fu ñu egg yow da dem daf lay jox courage. nga xam ni que donc man su ma defee effort rek dina egg fii da gën a motiver ndax bu ñu boole woon ñun kese ñoo xam ne que parce que man bi ma sama suñu boole ñoo xam ne que ñun ñooy première formation bi rek nga boole woon. ñu xam ni que mun nañ arrivé fii. Mhm. que la fekk nga boole ñëpp ku ne xool ni que ah diw de mi ngi woon fi depuis trois fois wala mi ngi quatrième fois léegi tey bu waxee parcours am fu mu jógee ak fii yow da lay gën a motiver. Mhm. xam ni kon. Euh, du ay nax daal. Mhm. voilà que c'est possible. ay wax rek yow yaa xam dund. c'est gis ñu koy wax. gis aussi seen changement. mu nekk ay preuve concret yoo xam ne que yow koy da nga koy si ñoom. ba loolu da ngay daf lay motiver yow à nga mën def effort. xam ne que aussi tamit soo defee li nga wax def rek si sa vie dina di nga egg fi nga egg nii. surtout. donc mu nekk lu am solo nga ci xamal ñu aussi suñu suñu suñu bopp nu ñu mel xamal ñu euh, suñu personnalité parce que dafay am ay jëf yoo xam ne ka daan jëf. Mhm. ay yenn comportement yi yoo xam ne que peut-être du duñ sa daan remarqué mën na la ci des fois ñu ne la li nga li nga defee nii baaxul. jugement yi mhm. jugement yi après yow doo comprendre. après nga mhm. may sa bopp nga ne ah kon li si man la. wala nga jëm ko changé. ngay jéem di adapté wu ci li nit ñi bëgg. parce xamoo sa bopp. voilà nga naan wax kon nit ñi li ñu waxee rek kon noonu lay demee kon naa jéem a def li ñu ci di wax mais boo ñëwee si formation bi yoo xam ne que yow lii mooy sa personnalité. yow nii nga mel lii mooy lii moo tax ngay tëju lii moo tax ngay nekk sa coin lii moo tax doo bëgg euh, di booloo lii moo tax doo bëgg jël le dessus lii moo tax yow doo bëgg euh, jël les devant nga xam ne que kon yow lii ak lii moo tax nga mel nii. Mhm. ñu ne la mënoo ko changer mënoo nekk benn personnalité li nga mën rek mooy travailler sa bopp. Mm-hmm. ba nekk meilleure version de soi. ba nekk benn meilleure personne. s'améliorer. Mm-hmm. améliorer sa vie. voilà sa bopp tout le di comment di égoïste c'est-à-dire que dañu jàngal tout le temps nañu xool suñu bopp d'abord bëgg suñu bopp avant les autres di xool lu ñu neex ñun. di bañ a basé si jugement. wala di bañ a si kii mm-hmm. nee na la yow ni nga war a mel wala ni nga war a defalee. du nit ñi ñoo lay définir en fait c'est toi qui donc xam sa bopp boobu noonu. déjà rek nga am solo nga comprendre sa bopp comprendre say say say façon comprendre say erreur. duñu la duñu baw dara sa bopp coach bu ñu bu boo duggee sa personnalité yi ku ñu dañ naan coach yow yaa ma xoolee yaa maa ngi mel ni soble ki ne la maa ngi mel ni lii parce que doo bàyyi dara si ñun mm-hmm. lépp lépp lépp ngay wax détail par détail ba yow soo duggee da ngay tiit da ngay mel ni yow soo xamul da nga naan kii xanaa ah, dafa am lu mu gis wala parce que doo bàyyi benn benn wax lépp lépp ngay wax si nit ki wax côté négatif mm-hmm. wax côté positif mm-hmm. wax fi nga war a améliorer wax ay solutions. pour xam ni personne n'est parfait en fait. ki ngay xool jàpp ni moo la gën moom tamit elle a ses côtés yi négatifs. c'est juste que dafa flagrant wul. te moom xam na bu baax que ni elle a des côtés yoo xam ne c'est très négatif comme tout le monde d'ailleurs. waaw le fait que ngay accepter sa personne. dalay may pouvoir que nit ñi même buñ lay juger ci say faiblesse wala say défauts yow tu ko connais déjà. waaw xam nga ni waaw c'est à toi de les changer. mais warul nekk loo xam da nga koy gis comme nit ñi dañ la xas wala dañ la bëggul wala dañ la supporté wul mais da ngay gis ni reflet li nga gëm ci sa bopp rek moom lañ lay jox en fait parce que soo gëmee ni yow ni nga mel wala ni nga mel nit ñi dañuy gën a accentuer côté boobu te yow loolu ngay gis parce que loolu nga wane mais soo focaliser sur côté positif tu verras que nit ñi li ñu leen di wax sa côté positif ci loolu la ñuy accentuer kon lépp dafay dérouler à l'intérieur de soi ban perception nga am ci sa personne. loolu la donc loolu yëpp dañu koy wax dañu koy jàngal ba nga xam ne que da bëgg yow nekk benn version boo xam ne que mhm. bu parfaite bu jege parfaite parce que kenn mënu parfaite ba yow après euh, da ko kontaan sa bopp parce que dañuy gis ay changement mhm. parce que boo ko jëfee surtout dañuy gis changement ci sa ci sa bopp di gis li nga xam mhm. donc nga xool fi nga nekkoon avant ak léegi da ngay gis ne am changement bu bëri bëri ba yow sax doyat donc loolu yëpp macha allah si cinq déb lañ ko amee Euh, donc aussi si suñu si suñu mariage aussi même chose donc li nga xam ni que nga jàngoon ñu psychologie de l'homme psychologie de la femme. surtout bi ñu góor yi si mere ah. ngay def mm-hmm. ay façon di mer di am ay yoo xam ne yaa ngi ko dañ sa xol doo ko wax suñu genre yi nga xam ne que ñoom dañuy intérioriser donc yow doo ko doo ko wax. da ngay téye sa mm-hmm. xol. di dajale ak yow nit ki di dajale fekk ni que moom comprendre. yëgul lu xew xew. donc yow yaa ngi koy métti bu fekk mu xam. xanaa dina ko comprendre dina ko xam. <laughs> voilà donc yow nga fekk nga xam loolu nga comprendre nit ki sa jëkkër moom nii la mel nii la fa nii nga mel jàngal la ngay wax say besoin. di def mm-hmm. nga wax laaj nga laaj ko li nga war a wax. te yam fi nga war a yam. yam sa place. loolu yëpp bañ a jël rôle jàmbur. <laughs> waaw di bañ a jël rôle jàmbur nga yam en tant que sa rôle jigéen nga yor ko. Mm-hmm. nekk jigéen ndax li nga wax def si jigéen. c'est ça nekk dans ta féminité surtout ça nekk dans ta féminité loolu yëpp tamit ci formation bi nga koy jàngee dañ koy jàngee. Mhm. ba nga xam ne que da mën a après am benn couple macha allah kontaan si ñi nga mel. parce que lu bëri da nga koy bàyyi mu jàll ñi nga doon nekk di ko téye yenn détails yi da nga koy da ngay romb. jigéen ñu bëri dañu nekk ci masculinité bëgg defante bëgg pour benn kii xëy euh, benn tiraillement de pouvoir. waaw ah, dama dinaa am fulla du ma jaay lii wala du ma duma duma faible wa donc jigéen ñi ni ñuy percevoir que ni loolu mooy sëy jàpp ni buñ la defee da war a defante soo deful noonu da nga ñàkk fayda wala limite ñu ne la noo muñal nga bàyyi mu jàll parce que nag àddina nii la xam nga jigéen buy sëy da ngay muñ ñaar yëpp c'est pas bien <laughs> il faut savoir waaw nekk ci xam lan ngay bàyyi mu jàll ak lan ngay. suñu place am suñu confiance suñu bopp si suñu suñu sëy par rapport ak suñu jëkkër par rapport ak suñu belle famille. par rapport suñu jëkkee góor yëpp dañuy ko parce que daf la neex mais pas am lu ñu la forcé mm-hmm. wala dafa am loolu ay attentes yooy xaar wala dafa am lépp tout le monde sincérité envers nous-mêmes ba pare mais aussi sincérité envers aussi les autres. lu neex loolu am solo. a neex parce que mais tant que dundoo ko tant que jàngul ni ko yow doo xam ne dafa neex. neex na ma aussi moom dama te carrément carrément. macha allah <laughs> donc vraiment coach bi amul sa fay ndax euh, aspect yëpp surtout aussi ñi bañ a wax ay bon boo déggee dafa ma personnel la nga jàpp ni que non foog nga xaar ba am jëkkër wala foog nga xaar mhm. xam ni que moo si gën a. mais c'est personnel c'est personnel c'est ah. parce que xam nga maa ante li nit war a xam mooy tey imaginel yow tey nit buy dugg ci couple. day indi seen bagages intérieur ak extérieur maanaam yow li ngay sa individu mooy dugg ci couple bi en fait te sa individu dafa bu amee ay problème du passé te ñun ñëpp dañu amee problème du passé par rapport ak nu ñu gisee àddina suñu personnalité suñu blessure suñu traumatisme sa jëkkër ñoom indi bagage yow nga ñëw indi seen bagage ngeen daje di mbëkkante après yow tu ne comprends pas wala gis ku dem bay baaji dugg sëy ne waa coach ça fait d'ici dugg ci sëy dama bëgg nga coacher boo bëggee ñu coach yow da defaru parce que tey soo defarul problème bi mooy doo tànn sax lu baax parce que bët yi ngay tànnee déjà euh, da nga ay verre noir fumé doo gis dara après soo duggee seen nga na ma fekkee ndax la yow yaa tax ko que tu étais dans l'inconscience tu ne pouvais pas voir les nekk si loolu tey day tax nga tànn yoo xam ne après soo demee ba dugg ci coupe après tu te réveilles tu ci lan laa dugg ne te boobu day fekk c'est trop tard waaw donc defar sa individu loolu damay wax ni euh, sa contrat sa digganteeg sa borom la mooy bi nga ñëwee ci kaw suuf da nga fi ñëw pour baax parfaire sa bopp defar sa digganteeg sa borom jaamu sa borom daf ci bokk parfaire sa complètement euh, parfaire sa comportement mais yàlla suñu mu ngi wax yonent sa salam dama leen wàccee ci dama wàccee yonent bi sa salam dama ko yónnee mu nekk yonent pour mu parfaire les bons comportements yow commencé fekk da ngay dund ci kaw suuf nga jàpp ne soo amul jëkkër waroo baax soo amul doom waroo yow daal pour yow daal la ngay dund rek comme ça. donc baax bi avant dara c' est avec toi-même. respect bi nga jox sa bopp ak amour bi nga jox sa bopp. Mhm. allez mhm. parce que loolu fokk ñu bàyyi ci xel. mission bi nga am ak say doom. donc bu mhm. nekk dañ la koy wax xam mission bu nekk. ba yow bu ñu bu ñu defee éducation des enfants ñi nga xam ne dañoo am doom lu yàgg dañuy mere seen bopp ñun suñu xamoon suñu jógoon teel a xam lii avant. Mm-hmm. ba mi nga xam ne doom da ngay kontaan nga ah, man de la fekk ma xam lii avant donc da nekk bénéfique. Mm-hmm. donc pour dire que. Mm-hmm. Euh, ku nekk mën na ñëw ndax bu. loo gën a teel a ñëw rek mu gën a baax. ñu mhm. xaar affaire bi ñu xaar parce que ku nekk da ngay rëcc ni su ma yëgoon teel a xam lii. Mhm. donc loo mën a teel a ñëw rek teel ñëw bul xool sa at bul xool sa responsabilité bul xool dara ndax fii ñu ñëpp ñoo fi bokk te ku nekk am na responsabilité du ñu ay femme nii nii rek ku ne am lu sa liggéey ñi am seen ay projet mhm. ñu booloo parce que dañoo bokk même objectif bokk lu ñu bëgg. loolu yëpp euh, fi nga koy xamee. man maa ngi nii mosuma wax si direct sama jëkkër léegi la ma romb mais yooyu intervenir nii dafa waar parce que xamuñ ma ko tellement que sama personnalité la donc tout le temps damay toj sama ñaar bu wax ma ne ah non man moom naa bañ a wax mais euh, su ma mel nii tey am benn changement bii nii. Mhm. et que naa ma gën a avancé 5 de bi moo tax ma mel nii moo tax ma am aisance bii nii. am atténuation. Mm-hmm. voilà si formation bi nga koy jàngee. Mm-hmm. donc bàyyi ko te côté religion bi aussi nekk na lu ma gën a neex parce que mm-hmm. euh, da ngay da ngay nekk si diini bi wala nga nekk si benn affaire boo xam ne ki da nga jàpp ne yow yaa nekk yooyu fi nga téye nii moo baax nag mais gis nga boo ñëwee nga xam ne da nga téye jàppoo daara jàppoo lenn lenn lenn nga xam ne que vrai wu diini bi en fait fi nga koy dundee fi nga koy comprendre xam sens yi xam la moo tax nga war ko def am conviction conviction dafa neex bi. lan moo tax nga ko def. Mhm. lan loo ko def nii. lan mooy sa pourquoi waaw. Ah. sa iman gën a yokku. Mhm. parce que man maa ngi nii dama teel a jël wér maa ngi jël wér tijaan depuis deux mille euh, deux mille seize. Ah, incha euh, euh, mhm. ci sankidee bi moo tax ma bàyyi wér di bàyyi lépp concentré si tawhid bi concentré si sunna bi. xam ni sunna rek mooy dëgg. waaw ah, sunna mooy njëkk te mooy mujj mooy diine bi set mooy diine bi yàlla validé. macha allah donc mhm. da nga sant yàlla soo xamee avant ndax danga ne mënoon naa def ba te boo xoolee sa bopp avant ngay dund sunna mooy amoo woon tawxiid donc amoo woon motivation ak certitude danga doon làmbatu rek tu n'étais pas motivé. soo xasee ba xam ba am tawxiid commencé dund sunna certitude bi ngay am. c'est tellement agréable ba yow tu ne rien te nit soo nekkul ci doute pour nga def les choses dafay facile te tu le fais avec. amour pas avec dama koy def parce dama ko a def waaw mais tu le avec amour ak beaucoup de conviction. loolu la nag donc duma pare santuma la parce que euh, sant sama yaay ah nekk yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. amiin ko aljanna fi daw daaw heure bii. Euh, waaw tey lu mu lu donc euh, du fi nekk pour mun ko wax moo tax maa ko wax à sa place. Mhm. donc taw tawhid ci dernier moment moom boobu noonu dund dund neex-neex si vie mhm. am apaisement am fi xool comprendre lu bëri. Mhm. ba xamante ni que moom euh, dem na si boo dem boo xamante ni que ku nekk bëgg na ko. parce que dem nga si tawhid te loolu mooy vraiment li nga xam ne que ñëpp mm-hmm. dañ koy ñaan. wallaahi te tey bu ko mm-hmm. yàlla mais sant la yow. Mm-hmm. moo tax euh, mu xam loolu ba euh, demee demee boobu noonu xam ne que ñëpp vraiment si fier. ci fier fier bu baax si dernier instant moom yi. di ko nangu. donc macha allah mais aussi moom bu mu demee mu bàyyi ñëw ak benn père boo xam dafa am trouble.

moom muy def yenn man ay def may jàpp parce que da ngay xam ne kii mu jëm nga xam kii nii objectif bii nii te a a. wallaahi <laughs> boo nekkee secret da ngay dangereuse <laughs> da ngay mujjee dangereuse. da ngay dangereuse. non da ngay garaaw <laughs> non gars yi loolu lañ dul comprendre. secret oh, da da xam yenn yenn yu bëri nga xam ne kii da ngay bàyyi. wallaahi ndeysaan bu fekkee ne moom bu ñu lay manipulé yow nga mën ko ne ah, yow yaa ngi xam lu bëri bàyyi ko si biir. di jéem lu jaay di mel ni yooyu yëpp. Mm-hmm. te aussi ma si jàppale samay samay frère parce que nekkuñu si. Mm-hmm. Euh, ma ma ma jàppale la si ñoom tamit ci côté boobu moom ma xam ne. Mm-hmm. ñoom aussi dañu mën def attention. si côté boobu noonu suñu bëri. ndax instant bii suñu yaay nekkuñu fii moom kese moo nekk ak ñun ak moom. Mhm. donc lu mu bëgg def mën na te te directement. Mhm. parce que amu ci benn barrière boo xam ne que mën nañu protéger. surtout ça ko moom. suñu jaay moom moo doon. surtout lépp di di jéem a moom ñu nekk si jàmm. donc moom mhm. nekkatu fi donc lii nii nga 5 bi moo tax ñu tey. vivre vivre boo xam ne que peut-être sans loolu dina doon benn nekk lu am solo Anta doguma la mooy femmes yi nekk ci relation yi yu toxique yépp dama ne c'est obligatoire ñu former wu pour ñoom mais aussi pour seen njaboot. parce que tey bénéfice bi mooy loolu mooy tey soo deful loolu dangay dem bàyyi say doom même boo demul ah, mais say doom loo dundoon yow ci naqar ñoom dinañ ko dund traumatisme yooyu dund dinañ ko dund te façon problème bi ñu am mooy après du ñu am benn issue pour génn ci situation boobu parce que dafa dafa metti tey nga dund naqar say doom nga yar leen ci naqar ñu dem demaat ci say aussi naqar yi ñu foofu moom la ñuy yóbbaale seen kër jëkkër wala seen kër jabar et di subir de choses des injustices yoo xam ni nit ki mën na koy subir accepté ko parce que gisul leneen loo xamante ni moo gën li mu nekk te loolu lu jar a bàyyi xel la waaw mooy femmes yi ñu jël ñu ñu ñu ñu investir ci seen bopp parce que santé mentale dafa nekk lu am solo. Ah, am solo de parce que santé mentale soo ko amee dootal sa jëkkër dootal sa njaboot. Mhm. donc yow da tellement que yow sa problème dafay nekk sa bopp sax doo xam lan ngay def foofu nag nag euh, sa njaboot ak yooyu donc lu bëri defee romb mais doo ko mën a gis. Mhm. parce que yow sa santé mentalement taxawoo stable. c'est ça. donc mooy lépp parce que. di sañse di sol designer di takk or et yow mentalement tu ne vas pas bien. ku la xool ni yii kii nag mu ngi ci macha allah nga koy ñëw fekk ni soo xamul li muy dund wala xelam bi taxawu toolu mhm. doo ko mën a gëm. donc loolu yëpp ñu koy jàngal ba nga xam ne ki su suñu xel lañ koy defaraat. Mhm. defar suñu xalaat yi defar suñu bopp. ba nga xam ne yow da mën a nekk situation psychologiquement. Mhm. mentalement lépp da taxaw ba da mën a ki nga nekkal aussi a mhm. a tal mën a xam a defal defante ak moom. sa mhm. environnement sa ñi nga jege sa famille sa belle famille ñëpp da mën a xam seen personnalité. xam ni ñu mel ku ne nga xam ni nga yemante ak moom li nga sekk ak moom te loolu yëpp ci cinq da nga koy jàngee. donc da ngay comme li nga wax fi daw si boo xamante ni. wallaahi yow tu comprends nekk féex après yow nga toog nag bàyyi gars yi nag dafay apaisant ñu xam nga lépp yaa toog noppi jàpp si te dootul ay sabab ci ay conflit ay xuloo ay defante et tu es ay lépp ay rey nga koy fajee lépp ki yow day sax comprendre sax soo comprendre mm-hmm. doo doo defal li nga doxal eh da ngaa am aussi yërmande tamit si ñoom surtout loolu mi di loolu surtout sax lu koy def loolu lii

mais yow da ngay sa bopp. donc macha allah ko moom ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal oustaz tamit si cours yu ñu doon jox parce que dañu gën a xam si diine. di xam sens bi di xam euh, sa pratique bi ñu koy pratiquer benn par benn te loolu yëpp si cinquante bi lañ ko amee. donc mii daal moom bu kenn wàcc ñëpp nañ ñëw amul âge amul liggéey amul dara. Mhm. ndax bu nekk mu nga ko boole ak cinquante bii nii. donc macha allah daal macha allah docteur Anta ñu nuyu la ziar la waaw di la ñaanal tamit parce que ça n'a pas été facile comme li may wax tout temps mm-hmm. mais teewul mm-hmm. tu tu as été assidu et wane nga ni daal l'impossible n'existe pas waaw boo bëggee rek mën nga def le tout pour euh, atteindre li nga bëgg waaw loolu tamit dañ ciy kontaan bu baax a baax di la jaajëfal bu baax macha allah ñuy ñuy waa 5D si moment ñuy partagé neexoon na jàng si yéen dund nañ dund bu neex donc mhm. mag comme daw daal ñuy nuyu ñëpp daal di bu baax a baax. nañu xaar ma wuyu waa WhatsApp <laughs> <laughs> waa WhatsApp <laughs> waa WhatsApp. salaam wa rahmatulah. Abi waaw man la waa. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare. yéen naa maa ngi koy waa. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay delloo nuyoo. coach ñu ngi lay nuyu di nuyu assistant yëpp di nuyu waa 5D ak ñiy déglu. ñu ngi lay fay. di wax ne vraiment kontaan nañ ci ci cérémonie de clôture bi. am na solo macha allah. di wax rek rek formation bi vraiment bii mooy sunu quatrième saison sunu juumul. wala troisième mais am na solo. ndax gis nañ si ay ay njëriñ yu bëri ci côté yu bëri aussi. voilà parce que dañu ne àdduna moom xam-xam moo ko tënk mais xam-xam ay. macha allah eh, te développement personnel bi ñuy jàngal. mun nañ ne xam-xam leer la allah te aussi nekk n'importe quel développement personnel. parce que dafa tënk si diine. voilà tënk si tawhid. léegi tamit ku boog soo bokkee benn ne li ma jàngoon laa fay ñëw jàngaat ndax saay boo ñëwee di da ngay sa investissement vraiment en tant que kuy gëna ci investir boole ci générosité bu macha allah boo xam ne daal mu ngi noonu ku si nekk dañu ci gis boppam te li ci gën a neex aussi surtout mooy que ni dañ ko tënk ci taw tawxiid mu nekk lu lu lu lu kii lu raar daal pour gis ko mm-hmm. parce que des fois ñu gis la ngay jàng euh, nga ñëw maanaam di def formation bi. Mm-hmm. nga gis ñu lay laajte naa yow looy dee développement personnel. <laughs> xanaa jàng xamuñu ne rek développement personnel la loolu la xamul. <laughs> voilà mu ngi noonu te xamuñu ne <laughs> affaire yi bokkul. Mm-hmm. mu ngi noonu xamuñu ne que c'est spécial ou bien aussi ñu naan la ndax dagan na affaire yooyu. te mm-hmm. jullit dina ko jàng. voilà donc juste rek pour wax euh, euh, ñi déglu ne que te xamaguñ ko nekk que développement personnel bi nii ngay jàngale lu leer la macha allah. Mhm. loo xam ne dañ ko tënk si sunna tënk ko si ko ci tawhid. gars yi loolu da leen di jaaxal nag gars yi dañ naan waa nu mu a nekkee nag. merci. <laughs> a comprendre nag de. <laughs> daf lay daf lay defaral defaral fii si àdduna defaral la àllaaxira mhm. waaw mu ngi noonu loolu jaru ko. Mm-hmm. billaay ndeysaan. mu ngi noonu man toujours dama daan eh, ñun ñii di jàng ñun ñuy def formation bi ay rescapé nañ. te des mm-hmm. rescapés à volet pluriel xam nga lu tax. Mm-hmm. <laughs> Eh, parce que eh, fu ñuy jëlee à chaque fois. fu ñuy yóbbu dafa sori da ngay seetlu rek booy dugg ci formation bi. li ngay indaale li ngay def sa xel. ak sa ay attentes ak yooyu voilà mais saa yi boo ñëwee rek ba dugg ba gis échange yi euh, commencé def ay un mois de da gis ne que li nga doon xaar euh, ak li fi am vraiment bokkul parce que li nga am moo ëpp fuuf euh, li nga xam ne que moo nekkoon say attente mm-hmm. te dama naan dama naan en volet pluriel d'abord si côté religion bi mm-hmm. parce que vraiment dinañ ba jàngal tawhid lan mooy tawhid en réalité mm-hmm. nan nga war a jaamoo sax parce que dañu naan sénégalais yi bëgg nañ diine mais maanaam dañ dul xam des fois ou bien même boo bëggee xam doo xam fi ngay jàngee. waaw doo xam fi ngay jàngee c'est ça. dañuy jàpp ni jàng alxuraan rek mooy jàng sa diine bu ñu la nee jàng sa diine rek nga ne maa ngi ustaas may jàng alxuraan. merci merci wala ou bien ou bien ou bien am naa lu muy jullee surtout jigéen ñi. jigéen boo amee looy jullee rek baax na. doy développement personnel bi <laughs> dañu lay jàngal famille ni nga xam ne ko famille yu lay demee. Mhm. noonu lay doxee mariage ménage yow ak say doom. Mhm. yow si sa jëmm bopp en tant que jullit bu jigéen. surtout femme musulmane donc euh, bëri na daal. Mhm. li nga xam ne mën nga ko fa am euh, comme bénéfice ci côté élévation spirituelle. loolu da ngay jàppale nga épargne en société. ah parce que psycho psycho spirituel la ñuy def e c'est macha allah. muy ah, ah. noonu. dafay defal say jikko ci ci côté yëpp. Mm-hmm. ba aussi aussi euh, li ma ci gën a jëlee aussi ci formation bi mooy que ne. Euh, nga maîtriser personnalité yi mën nga relationné nga mm-hmm. comprendre sa bopp waaye tam nga comprendre euh, ñi nga xam ne que ñoom ngay dëkkal ak yooyu en sa mm-hmm. environnement ñi nga xam ne ñoom lañu relationné voilà parce que loolu aussi dina la jàppale éviter la yenn problème yi. Mhm. yombalal la sa dund vraiment. Euh, côté côté financière bi aussi dina tax nga mën a gérer. waaw parce que vraiment développement personnel yi ngay gis suñu la nee euh, dañ la jàngalaale sa diine en même temps jàngal la ni ngay euh, dépenser sa xaalis. gestion financière ak mën yàq. Mhm. muy noonu. am am aptitude sax li ngay liggéey nga yokk ko am aptitude li ngay liggéey nga gën ko jox qualité jox ko valeur pour mu rapporter la de plus. waaw ndaxte des fois aussi si suñu dund dinañ ne man xaat bi jaay dama lii dama bëgg entreprendre alors que doo noo koy defee mhm. wala boobu boo ko nawee def aussi boo si bëggee xam dara di nga dem fay formation ñu def defal la képp mhm. nga mën ko xam waaye boo ñëwee cinq mu ngi noonu euh, dañ ciy gañe daal une cuillère deux coups la nekk ñëw ñëw ñëw aussi nañu question du temps bi mhm. côté boobu aussi dinañ la si jàngal lu bëri. waaw euh, di nga xam ni ngay gestionner sa temps moytu yenn perte yi. Mm-hmm. daf lay de soi. confiance en soi. mu ngi noonu nga xam ne que di nga mën a avancé ci projet yi nga xam ne moom ngay teg sa adduna mm-hmm. euh, yi tamit côté éducation des enfants bi. gis nañ ci njëriñ bu baax parce que dañu naan yar yombul mais. c'est très vrai des fois euh, nit dina bëgg xale par exemple euh, bëgg yar mais mhm. doo xam parce que li nga xam ne noonu lañ la yaree moom ngay bëgg ñëw reproduire mhm. mu nekk nekk aussi beneen point parce que bu ñuy ñëwee vraiment dañuy ñëw takk suñu lunette ah takk suñu lunette noire mais ñëw toog <laughs> teg tànk yaakaar ne que xam nañ lépp alors que mu ngi noonu mais bu ñu ah, ñëwee à jour mhm. indi ay affaires yu bees man duma neexal doom ak doom duma yab ni ma bëgg noonu ngay mel <laughs> ces termes là. voilà. voilà les mu ngi noonu. Mhm. mais suñu jàngalee nga gestionné sa bopp yow ba pare da ngay apte pour yar. Mhm. nga gis ni nga a gérer say xale. Mhm. mu ngi noonu apte bépp xale boo mënta jëfandikoo. nga xam ne vraiment soo jàngalee kenn day mel ni que ni ne mu ngi noonu daal jàngale ñu bëri en même temps. parce que kooku yi tamit mooy dem. jàngal ay doomam parce que éthique jàngale la rek jàngal ay doomam. Mhm. xale xam ni muy relationné ak bu société. ak maternel bu bu bu bu bu am amur en fait maanaam. c'est ça doo bëgg sa yaay parce que ñëpp a ngi bëgg seen yaay mais dangay bëgg sa yaay parce que daf la daf la incité nga bëgg ko ndax melokaanam ak euh, ni muy dundee ak yow. mu nekk lu am solo. Mhm. ñu ngi siy jàngal euh, benn amour boo xam ne sincère dafay inconditionnel mm-hmm. ñu xam en réalité lan mooy valeur amour. Mm-hmm. lan mooy valeur relation parent enfant surtout surtout surtout ça. Mm-hmm. ñëw aussi ci côté blessure blessure aussi nekk lu am solo. ak aussi jàngalu personnalité yi. parce que dina tax yow nga xam sa bopp dina la éviter yenn critique yi def sa bopp mais aussi mhm. nga mhm. mhm. ay avantages yu bëri man damay xool rek bi ma dugg. ba balaa nga xam ne que moom la ma yóbbu bi ma si dugg nii. moo tax euh, bi ma defee benn saison ba pare. ni déedéet man daal ci benn bi ñam naa ko neex na bàyyi naa ko daal ak fenn il faut que ngay continuer pour mën a xam comme ça ngay gën a soigné au fur et à mesure que ngay dem mu ngi noonu da am benn bagage boo xam ne que tu te rends compte que amoo ko woon auparavant daf lay jàppale si sa dundu. Mhm. non seulement yow mais aussi euh, ñi ngay dëkkal. Mhm. parce que sa relationnement ak dina gën a dina dina gën a loolu. Mhm. dina gën a euh, rafet daal man dama seetlu rek balaa ma ci dugg euh, dama daan am problème de relationnement ak yooyu ak samay blessure ak sama personnalité. mais bi ma si duggee ba jàng. mu ngi noonu nga xam ne balaa nga dugg da ngay di joxe mhm. yaakaar ne par ko teg wala yooyu mhm. mais daf lay jàngal euh, formation mhm. ko di defal. tant que yaa ngi nekk position victime doo changé dara de looy changé doo changé dara. Uh-huh. <laughs> na victime moom du ñu créé dara. waaw du ñu dara. effectivement mhm. waaw te loolu yëpp aussi li ñu ko lal mooy euh, jàng diine bi rek mu leer parce que mooy base bi mhm. yow dañ ciy insister trop trop euh, cours yi yëpp dafay lii ak diine lii parce que moo lay dëgëral loolu aussi dina dëgëral dalay ancré ba nga ah. xam ne dara du la yëngal c'est la foi daf lay fortifier bu baax la foi mhm. dafa am solo dafa am solo parce que dina tax vraiment nga wàññi yi nga am def mu ngi noonu daal da nga gis changement bi. Mhm. positif lool à plusieurs volets aussi. Mhm. dina tax nga gën a góorgóorlu gën a mën a relationné. Mhm. Euh, wàññil la yenn problème yi nga gis da ngay une gestion équilibrée des relations. surtout surtout. waaw ça va poser tes limites mhm. avec diplomatie tamit yokk sa confiance dafay bis boost sa confiance. Mhm. wàññil la aussi <laughs> te gi nga daan def sa bopp di sévère sa bopp mais aussi. Mhm. Eh, li nga daan nit ñi di nga leen xalaatal da ngay dem ba benn instant loolu yëpp day mel ni développement personnel bi da koy effacé. parce que di nga si beneen bët. c'est ça. voilà di nga am yërmande si yow si sa bopp mais aussi nit ñi. Mm-hmm. te da ngay gis aussi en retour nit ñi dañuy mujj am yërmande si yow. si yow affaire bi day ñëw dëppuwaat si mm-hmm. yow voilà. day ñëw revenir. Mm-hmm. moo tax daal na solo waxuma loolu mais aussi côté côté religion bi li nga ciy jàng vraiment euh, dafay tax en fin de compte ci société bi euh, problème bu ñu la mënta laajte rek yow mën na mm-hmm. de problème yi ñu ngay tegal di nga solution da ngay mm-hmm. oustaz ah, daal oustaz ba bi sax di di wax ndeysaan ak a neexoon <laughs> léegi dama aay <laughs> waaw masala yu bëri da nga koy xam <laughs> masala yu bëri da koy xam waaw

am na solo moo wax daal man dama vraiment képp ku gis lii rek. war na la mën a convaincre macha allah. nga xam ne que lii ay njëriñ yu kese kese la. kese waaw surtout te bu mu yàlla daal si ñëpp jot daal. macha allah li ma na si ñëpp jot. parce que vraiment yaa ngi defar vie wu nit ñi nga yëg nga ñàkk ko yëg mais yaa ngi defar ji vie wu jaam yi macha allah. nga ñaanal fay la amiin amiin di a cinq grandes raisons yoo xam ne mm. cinq bonnes raisons yoo xam ne war na mën a tax mm. euh, ku dégg kii rek ku gis euh, vidéo yi rek vraiment daw si gaaw mm-hmm. parce que place yi dafay dafay xat. waaw dafay dafay limité. Mm-hmm. Mm, voilà mu ngi noonu ñu mën tub mooy tub waxante bi. <laughs> waaw ñu <laughs> waxante si boppam dañu war a a inscrire. waaw teel a jóg ba ba jóg jotee. cinq voilà mu ngi loolu. Mhm. cinq bonnes raisons premièrement parce que dafa ànd ak taw bi si bëri ñuy laajte naan ndax dagan na wala daganul. Mhm. ndax li la laajal si sa diine rek vraiment euh, man dama naan di formation bi rek bu mhm. neex nañu. su nekkoon loolu parce que vraiment jar na ko. ñu ñëw encore ci beneen bi. deuxième bi tëjal sa micro. dafay jëriñ ci àll jëriñ la aussi ci àllaaxira rek. diggante ak sa bopp. macha allah. Ah, ah, parce que dëgg yàlla mu ngi noonu defal surtout loolu parce mooy sa base. soo ko ratee sa dund yëppay ratee. surtout loolu. wax ci boo amee problème comme ni nga doon dem di ko wax nit ku nekk di la xamal et tout. yow mhm. ni ñu amee. parce que tu autonome parce que tu as les outils. waaw parce que tu es autonome. Mhm. bi. waaw. Euh, day mel ni que daal te doo am doute waaw ah, doo am doute parce que li ngay def xam nga ni bu dee ci diine tu es quitte avec ta conscience bu dee ci psychologie aussi tu as les outils pour procéder. merci. merci. troisième point bi mooy euh, le fait ñu naan la yar xale dafa metti ak yooyu. gis nga formation bi boo ci duggee aussi man dama naan côté boobu rek vraiment jar na lu ne. Mhm. ni ñuy jàngalee gestionné ak xale yi. da am yërmande ci xale yi ndeysaan. merci merci. nga xam ne yow si sa jëm bopp soo amee problème. soo gisee problème avec les enfants. di ko mën a solutionné mais fii boo gisee keneen am problème ñu gis la ko di ko mën a kii. di ko ci mën a. accompagner voilà quatrième point mooy que suñu inscrire vraiment c' est grande chance lumière la parce que daf lay leeralal fi ñu ci am mais aussi. la bu baax ci alaxira voilà mu ngi noonu tawxiid bi rek. jar lu ñu ne cinquième bi dernier point bi aussi ñu ngi ko ne li nga daan dutee di am manque ¿eh? de confiance ak yooyu. yooyu yëpp dafay dem. parce que da ngay wóolu sa bopp da ngay xam dañuy am ay objectifs de vie. en quelque sorte ay procrastine bi am objectif de vie di leen réaliser. am sens. te xam lu tax nga exister. sa dund day am sens. merci merci nga xam ne que vraiment dina accepter sa passé dina tax nga mën a dund mën a dund sa présent ak jàmm. waaye tamit pour le futur. wóolu yàlla ci sa futur. waaw allah am na solo. am na allah. waaw di wax rek yàlla yàlla yàlla sàmm la. ñu kontaan bu baax a baax. vraiment. yomb yomb yomb la ndox mi yëpp aussi. amiin amiin benn inscrire. voilà ñu ngi kontaan bu baax a baax ci intervention bi. ah vraiment am na solo waaleykum salaam wa rahmatulah. donc. Euh, salaamaaleykum. ñu jël euh, waaw naata yegg si salaam wa rahmatulah. Ah, mhm. euh, ñu ngi lay nuyu di la fay nuyoo di la ziyaare. ok. Mhm. bi macha allah. <laughs> merci <laughs> beaucoup wax ñu nga wax ñu nga wax ñu nga wax ñu col yi. <laughs> merci beaucoup col yi de dañ ma koo jëndal rek seen Sénégal googu la jógee xaw ma sax fu ñu ko jëndee. waaw waaw waaw boo paree nga xoolal ñu suuf si am na solo. <laughs> Mm-hmm. Uh-huh, ci formation bi di wax ne mm-hmm. bi ñuy am bi ñuy ñëw euh, liñ fi fekk moo suuf sunu njort. Mm-hmm. waaw comme li may faral di wax rek surtout man développement spirituel bi. Mhm. Euh, damay wax ne que booy jaamu suñu borom foog nga xam ko. Mhm. donc de personnellement comme euh, man moom dama doon dama dama doon tëyëx tëyëxee rek di dem. Mhm. waaw donc à 5D bi macha allah xamal nga suñu borom. waaw boo xamee nag nga def ko sa xol. donc euh, li ci li ci topp moo ci topp waaw ah, loolu kenn mënu ko expliquer <laughs> mi ngi noonu macha allah macha allah donc euh, am na njëriñ daal am na njëriñ lu am na njëriñ boo xam ne kenn fu mu toll daal man mënu ma ko mënu ma ko natt mënu ma ko mënu ma ko expliquer. Mm-hmm. donc tax na ma gën a defaruwaat ci côté euh, diine bi. Mm-hmm. côté. Euh, de de nu tuddati éducation des enfants surtout aussi. Mhm. nekkoon na lu ma soxal. waaw parce que dama doon ci rencontré lu ay difficultés comporte nooy comporté waa xale yi comme ni ngay mhm. wax euh, tolérance bi surtout. Mhm. Euh, yuuxu <laughs> waaw énergie. ba sa énergie jeex. donc ñun moom ba sa énergie jeex. doo comprendre mais léegi da ngay gën a am dal. di gën a am dal même boo demee sax ba yuuxu dangay ngay sa bopp. di bañ a emporté wu defee kii après. xam aussi yuuxu yi effet traumatique yi mu mun a jox xale yi waaw. si effet yi muy joxe joxe dafay de de c'est mhm. dévastateur. baaxul baaxul baaxul waaw loolu loolu am na solo trop personnalité yi aussi man léegi dañ ma naan foofu ma gis nit rek maa ngi téye. <laughs> yaa ngi <laughs> maa gis que ne même ak yëpp dañ ma naan yow moom lii la la ko wax leen nit ki lii la maa comprendre lan moo tax kii nekk lii waaw am naa benn collègue boo xam ne ni tout le temps côté altruisme bi surtout kooku dama jaaxaloon et puis je l' acceptais ni kii kii dafa dof wala lu ko dal pourquoi eh, il est comme ça en fait mm. dimbale nit ñi day daw soo dafay sonn li mm-hmm. waa kii euh, je comprenais pas mais boo demee ba xam ne kii lii mooy personnalité li ko motiver nga mhm. accepté ko waaw kay nga xam lu ko motiver xam ne lii mooy défaut yi lii mooy qualité yi ku mhm. nekk non mais euh, après dangay am jàmm daal mhm. lu bari lu bëri lu bëri doo doo ko du nekkati problème nekkati problème waaw da ngay am acceptation am tolérance waaw mën a jëflanteeg nit ñi donc daal macha allah macha allah macha allah lu lim lim lim nu indil lépp moom. buñ ko doon wax ba suba fii la ñuy fanaan. fii la fanaan defal na lu bari bari bari bari bari bari bëri si ñun. waaw defal na lu bari lu bëri macha allah macha allah macha allah. sant loolu la loolu la amoon lu ma ci wax. Mhm. xool ak. Euh, euh, aussi sax. déjà bon. waaw. côté confiance bi nag parce que c'était un problème boo xam ni moom. c'était flagrant. waaw waaw. ragal bi. wax bi sax ma ngay rëy. waaw man c'est la première fois may wax si kii comme Anta ni mu ko doon c'est la première fois merci la c'est la première fois donc. côté confiance en soi léegi rek sànq rek laa koy wax sama yaay ma ne sama yaay man kay gis naa loolu. Mm-hmm. Euh, am na lu bari am na lu des mais maa ngi ciy liggéey bu baax. Mm-hmm. xam naa ne am na am am naa ah, processus am mm-hmm. waaw processus la. am naa ne am naa ci baax. et ak wax aussi genre say besoins comme ni ngay wax. Euh, waaw di ma jaay rek. di di waaw. di laaj laaj la waaw bi moom xam nga. <laughs> bu ñu amee lu ñu métti ñu koy togg ci biir rek di waddaat rek mm-hmm. donc euh, mm-hmm. loolu aussi maa am naa ci maa ngi ciy def travail bu baax mi ngi mm-hmm. mi ngi mi ngi avancé waaw maa ngi ciy def gis naa si ay jéego bu baax boo xam ne ne am naa ci amélioration bien vrai que des na waaw mënul du jour au lendemain rek comme ni changé automatiquement mais boo ci conscient wee boo ci conscient wee loolu rek déjà tu as gagné quelque chose waaw waaw conscience bi ba pare di ci liggéey. surtout loolu je sais que dina dina ñëw. dina mhm. ñëw bu baax. même sooy waxtaan ak nit ñi sax ñoom dañuy gis euh, que réellement am na changement. <laughs> na quelque chose daal y a quelque chose. <laughs> am na quelque chose am na quelque chose am na. dañ leen ne mhm. kii <laughs> naata bi day changé. ton ton dafay changé. waaw ah, gis de confiance en soi bi la. effectivement ton bi dafay changer tu sens que la personne s'affirme. waaw léegi dafay dafa wóolu boppam et que li muy wax aussi da koy assumer et se sent se mhm. sa bopp <laughs> sa bopp ah, man daal waaw non mais ah <laughs> macha allah. vraiment ah, parce que tu te sens capable. tu t'es donné des challenges que et après da nga xam ne rien impossible en fait. rien impossible. il suffit juste nga am ci conscience et que nga engagé wu. waaw surtout surtout allah. saytu daal daal ñàkk <laughs> li ñëpp wax ah je wax teel koo def sax parce que da ngay toog si euh, euh, boo ko teeloon def. Ah, waaw su ma ko teeloon sax waaw ñu bëri loolu la wax. su ma ko teeloon xam peut am na lu bari loo xam ne. Mhm. <laughs> amaan na doo doo doo fa ja wala doo. bu leen bu leen fàtte tamit euh, euh, loi gestation lu jotul lu am de. waaw tànk xooxoo. xam nga ñoo xam ne fokk ñu xoox. am <laughs> yàlla soog laa yónnee buum bi nga defaru ji. Ah, chaque mhm. chose à son temps. en fait rek waaw lépp heure ba mu war ñëwee rek. surtout loolu la. Mhm. <laughs> macha allah. parce que des fois di nga ne ah lii su ma ko xam na soo ko teeloon xam doo ci am sax besoin mën na nekk nga romb ko fi parce que tu tu crois que soxla woo ko waaw ah, te loolu day daal ñu bëri. comme li ngay wax aussi de xam nga yaa ngi naan euh, nit ki bu ko mooy décider kenn mënul wax nit ki ñëwal def wala kii effectivement nit ki mooy dem ba sentir besoin bi jugal boppam def ko kenn du force kenn. c'est avec amour waaw. moo tax tout le temps du ma bëgg nit fayal naa kii fayal parce que damay bëgg nit ki sentir besoin parce que loolu moo gën a fort en fait parce que appel la boo xam ne tu sens que yow mii kat <laughs> nga war a sa jóg si sa bopp nag waaw mais bu ñu la fayalee du am sens du am benn sens waaw mais boo xamee da nga war a jóg sa bopp tu vas tout faire pour pour pour teg ay actes. Khadija yow bokkoo saison ren Khadija danga yow yaa ñuy may nag waaw mayal ñii seen bés la bu ñu xewee seen xew après des na nga jël <laughs> doos doos saison bu ñëw nag ndeysaan. dafay dafay dafay ah, saison bu nekk daal li ma naan li teew teew rek mais saison yi moom macha allah vraiment. ba pare bi allah. aussi ah, rythme bi énergie bi bëggante bi c'est sincère c'est vraiment au top. c'est ah. c'est naturel. c'est ça confiance bi day naturellement parce que. ñëpp ñi fa nekk li leen ci lenn la mooy améliorer sa bopp. Mhm. te damay wax nit boo ñëwee pour améliorer sa bopp je crois que doo <laughs> doo nekk ci lenn lu lay delloo ginnaaw en fait. parce que da ngay gis ñun améliorer wu et tu envie de poser des actes pour améliorer wu yow tamit. ah donc ça vient naturellement yëpp ça a été très mhm. enrichissant macha allah rien à dire. rien à dire sant yàlla en tout cas dina jaajëfal parce que yow tamit. ça se voit que non ça se voit au début say audio su ma ko doon déglu vraiment <laughs> euh, <laughs> non changement am na. changement am na non man xam naa ko macha allah. di sentir que kii mu ngi wax mais bëggul wax et que da ngay sentir réticence boobu sentir waaw. peur boobu c'est ça. peur yi hmm. avec le temps boo ko boo ko dindee rek. c'est ça tu sens que wépp na changé. waaw. sant yàlla en la ñaanal <laughs> yàlla lépp lépp loo seet yàlla yàlla defal la ko. ñu bokk ko ñun la macha allah. ñu bokk ko ñun ñëpp en kontaan nañu bu baax a baax. Ah, ñu jël benn nit si whatsapp bi parce que xam naa ni gars yi ci whatsapp bi tamit ñoom tamit ñu ngi ñu ngi kii <laughs> ñu ngi patienté boobu ba tey <laughs> ah, parce que ma ne ko ñu jël gars yi ak beneen nit ci whatsapp bi ñuy alterner. waaleykum salaam ñu jël Soxna Ndiaye. Euh, ñu jël kenn ci whatsapp bi après ñu kii waa Soxna Ndiaye yegg seen. waa Soxna Ndiaye ñu ngi lay dalal di la nuyu di ziyaare. ñoo ngi ziyaar macha allah di kontaan ci uh, kii bi tey. ci tëj <laughs> tëju école bi allah. waa école bi tëj bi. gis nga macha allah. mooy réseau baa ngi daw nag réseau bee dawal sa connexion mooy benke ñenke wala danga am appel ñu xaar la nga yegg si kon donc wax na njaay duñ la xaar de ñu jël kenn kan moo Xadija boo bëggee yegg si Xadija Xadija bee nu mu tudd waaw Xadija mel ni mu yegsil allo salaam wa rahmatullah yegsil ñu ngi lay nuyu di la ziar sa sant bi rafet na <laughs> merci beaucoup yéen laa ko tuddee yéen laa jàppale seen xew <laughs> suñ xew bi moom neex na neex na ba fu mu nekk nii daal. billaay ndeysaan. xaw ma daal naka laa ko waxee dafa émotionnel parce que xam nga rek quatre mois boo xam ne. billaay billaay xam nga transformation bu mag la. Mm-hmm. billaay ndeysaan. waaw. duga mm-hmm. waaye rek xam nga yàlla moom moo dee seedaane mm-hmm. so am xaalis bi taxut nga mun a ñëw parce que soo seetloo ñun mi duga cinq déjà am na ñoo xam ne suñu entourage bi bugga nañ pour ñoom tamit ñu ñëw. Mhm. ñu rootee fu ñu nekk di rootee. Mhm. <laughs> mais lu nekk rek comme oote la rek su waxtu bi jotee rek dina yomba incha allah. Mhm. soo man cinq d nag macha allah li ma fa fekk dafa weesu suma jot. yow nan nga xamee 5D nan nga def ba gis 5D ba bokk ci formation bi. 5D foog naa ni li nga nekk di def nii rek. comme am. am sa TikTok live nit ñi ñëw di témoignage di laa jàngee si 5D. xam nga mm-hmm. gars yi wax éducation des enfants ñu wax affaire yi diine. Mm-hmm. te man yooyu dafa nekk loo xam ne si loolu laa nekk di liggéey. Mm-hmm. te dëgg la nekkuma di liggéey ak ay nit yu ñuul ay tubaab laa nekk di liggéeyal waaye benn bés bu naa lépp lu ma fi jànge ak expérience bu ma am. bugg naa dem Afrique tamit ma séddaale ko ak nit yu fa nekk. Mhm. te gëm naa ne su ma ko jàngutee si loo xam ne dafa méngoo suma aada ak suma cosaan. Mhm. dina jafe torop pour ma am nangu ko. Mhm. léegi nag man nag kumpa moo ma ci dugaloon. ma ne xaaral ma dugal. ma la ñuy jàng foofu. buy jàngale développement personnel. <laughs> ndege man suma boppa nag man la ñuy nag. jàngal parce que man su ma booboo maa war a faju bu ma jàngee fa nag loo xam ne lu am solo la si loo xam ne musuma ko xam muy suma personnalité mm-hmm. dama ko dee def décision yu bari dama ko dee jël mm-hmm. ba pare comme rek man suma personnalité bi ñun dañ nekka nit yoo xam ne soo amee lu la naxari da ngay nekka di ko publicité wu di wax ne lu tax ma def lii lii laa waroon a def lii laa waroon a def soo loolu dafa nekkoon ba xam ne daf ma daan sonal. tamit ah, loo xam si man lu toxique la. dama uh-huh. nekk di di ko utal di ko utal reason lu tax ma war koo téye parce que dama fiil ne su ma ko bàyyee. Uh-huh. boromam dafaa wax ne man dama bon dama soxor ak uh-huh. yooyu noonu waaye macha allah léegi moom dem naa ba comprendre man may kan. parce que loo. ku nga sa a dimbali mm-hmm. bi tamit bu ma jàng mooy luwaay cause bi mm-hmm. ak énergie yi énergie mm-hmm. bi nga nekk di joxe li nga problème bu yi de waaw so ñu jàngal jàngal soo yow danga dee toog rek nga préparé nag préparé sa bopp nag toog di xaar nit wax la dara rek nga tontu ko. Mm-hmm. waaw soo lu nekkoon na problème bu rëy pour man so dem naa ba nga xam ne dama gëm ne dama war a jàng wax te jàngee naa ko cinq day mm-hmm. surtout fan yi cours bu ñu nekk di def ci éloquence. Mm-hmm. naka ngay waxee pour convince nit ñi. déglu la. su dee da waare. looy waare dafa war a méngoo ak yow li ngaa jëf mm-hmm. parce que ñun dañ amee benn wax boo xam ne waaw day déglu nit ki lu moo wax te bañ a seet li moo def adéet tey day yomb dëgg la mun ngaa déglu dëgg la mun ngaa déglu li moo nit ki li moo wax mm-hmm. waaye li moo jëf tamit dafa am solo comme li moo wax mm-hmm. parce que li moo wax su méngoowut ak li moo jëf ak lu mu la munti wax tamit yow doo ko mun a doo ko mun a accepté sa xol du ko nangu waaw waaw doo ko mun a accepté comme Afrique léegoo-léeg nga dégg benn imaam def na lii ñu ne waaw déglu ko lu moo def rek te bañ a xool si moom wala nga xool si de daf ñu doon euh, jàngal si ay jëfam ak li nga xam ne su amee du ci wax dara ak li mu doon digle waaw ah, léegi nag bu demee bañ ne bu ñu xool comportement nit problème day am waaw mhm. ah, te psychologie def la naa nit ki lu mu wax bu ko xool mais xoolal lu muy comporté woo ak yow waaw mhm. so kóoc si boppam moom moo dee njëkkee ibi ibi waxtaan bi moo dee wax ne man lii laa def lii laa def lii laa def. <laughs> waaw raconte sa expérience sans gêne. <laughs> waaw ah pour xamal leen nit laa rek en fait. waaw bu leen jàpp ni maa ngi coaché rek sama dund dafa parfait. waaw eh, non. waaw xam nga ñun suñ gisee kóoc dañ dee foog ne kóoc moom lépp la xam. Mhm. moom am naa am comme dafa fa waaye moom tamit am na fi mu jaar bi ak mhm. so man bi ma duggee cinq de dama la xool ma ne kii su nekkee war naa dundali yëpp kii gënut ma métti le dundal su waree góotu ah. lii yëpp tey mhm. nekk kii man c'est ça te xam na nit ki pour nit ñi déglu la ñu mun a jàngee si yow foog ñu xam tamit sa jaar-jaar c'est ça parce que day jàngalaate effectivement boo xam ne dang ko defar ba mu nga teg ko waaye gannaaw boobu lu fa nekk. lu nekk si ginnaaw xam nga loolu mooy suñu problème même ak diine ji. doguma la da ngay jël benn sëriñ nga def ko mu parfait comme du def bàkkaar après nga bëgg jël ko ci modèle da nga am problème parce que doo mën a jël ci moom modèle. yonent bi saa salaam gis nga tiim tiim nan lañu ko yàlla jàngalee yonent bi dafa voyagé ak suñu Umu Aïcha ñoom ñaar ñu jote ci guddi gi ñu xëy amuñu ndox xam nga problème day am ñu war a julli. ñu ne caaf xam na ndax ndox amul yàlla wàccee tiim pour wan leen ni yonent bi sallam li ngeen sekk ak seen soxna moom loolu la sekk ak soxnaam ba ba sangu set war ko <laughs> te comme ndox amul jàng leen ci moom <laughs> jeex na tàkk la ok mu ngi bi mooy nga nangu nangu surtout yàlla daf ko traité ba pare mhm. a jeex na waaw soo boobu tamit nekk loo xam ne lu lu jaar a comprendre mu ngi noonu. Mm-hmm. naa surtout suma diggante ak suma waajur bu góor. dafa métti woon trop sultaane ju am problème. Mm-hmm, xam nga léegoo ma mm-hmm. toog di wax ne waaw kii lu tax ba léegi mënuma accepté waaye dama dem ba ma. ma dem ma waxtaan ak moom. keroog ma doon wax ah, waxtaan ak moom ñu am waxtaan boo xam ne suma waajur bu góor waxtaan. ndeysaan ma juddoo ba tey. sant yàlla léegi suñu diggante macha allah ratax na ratax boo xam ne ba pare am naa ci moom yërmande ba nga xam ne. sant yàlla. Mhm. léegi bëggatuma dara loo xam ne daf koy métti. ndeysaan te même chose te loolu la parce que nit ki sa mhm. diggante ak sa waajur lu am solo la. dafa am mhm. solo ci sa avenir. parce que sa diggante ak sa waajur. su rataxee mooy sa comme ni nga ko waxee rek loo yootu rek jot ko. waaw beneen bi mooy tamit. jàngee naa tamit si blessure yi ñun ñëpp dafa dañ am ay blessure waaye dañ ko dee nuba. ñu mm-hmm. ko wane ne waaw benn problème amut benn problème amut. aw ma benn problème maa ngi ok ma joxe benn exemple tey dafa am suma benn xarit yi tubaab ma doon waxtaan yaayam dafa gaañu. ndeysaan talaata bële passé. Mm-hmm. léegi ñu suul ko si samedi. léegi man ne yow lan nga nekk di yëg. nekk nii. Mm-hmm. mu ne ma ah. su ma yaay dafa màggetoon dafa xam nga dafa yaaga feebar léegi moom xam nga mu ngi si jaama comme que gaañu na léegi moom gëm naa ne mu ngi si jaama ma ne ko yow lan nga nekk di yéeg mm-hmm. ah, moom yëgul dara dafa daf ko bugg a dafa bugg a gis lu positif. Mm-hmm. bugut a xalaat lu négatif. kon moom mu ngi fay day ma ne ko fay loo ma ne ko fay léegi lan nga nekk di def nii mu ne ma suma coaching bi nag si la ñëw ma ne ko ne yow fu mu nekk nii am góom. bandaas ko ba mu baax solal ko yére di ma loo ne yëguloo dara waaye soo wéetee ba sa lampay ba ñu sa biir cabinet loo dee yëg loolu laa bëgg nga wax ma mu dama wax nga dégg de <laughs> mu ne ma dama ko nekk di daw rek waaye ma ne ko soo ko duñ ma ne ko fii ngay di fi am dix ans mhm. ko nit faxasee rek mu ko rek ma mhm. ne dina si delluwaat mhm. ma ne ko danga mu mel lu bees lii dafa métti exactement ma ne ko ñaaka waajur surtout yaay. ak mhm. loolu dee wax sa diggante ak sa yaay. ma ne ko nga ñaaka ku mel noonu sa dunda nga ne yow yu ah ok. Mm. ma ne ko loolu is not normal. dunul nekk. ma ne ko loolu normal. Mhm. ma ne ko da nga war a accepté ne ñaaka nga sa yaay. nga dem émotion yi nga jël émotion yooyu nga métti lu ko. bul ko nga dund ko comme il se doit accepté ko. waaw. Mhm. ma ne ko nga dunda ko nga accepté ne dafa métti nga dunda ko ma ne ko waajur bu gaañu ki waajur su gaañoo rek am na lu moo wàññi sa. mu ne ma wax nga dëgg de dama nekk di max li ma nekk di dunda waaye su wéetee guddi mu ma dama ko dee yëg ko léegi nag ndax léegi lan nga war a def pour faju da nga war a accept ne lii xew na te yow mënuloo change mhm. situation bi tappate leen live bi mbokk yi tappate leen mhm. sinon lay bëggee ma ne ko ba pa nga xam ne am na koo xam ne juddu na musta am expérience bu mu am ak mhm. yaayam mënut laa wax yaayam nii la mel ma ne ko waaye si yow am nga ay memories yoo xam ne yu baax la ma mhm. ne ko ne so da war a accept ne rek dafa métti dafa métti nga dunda ko mu jeex mhm. mooy acceptance bi accepter suñu douleur yi ñu bëri duñu accepter douleur exactement waaw waroo souffrir xanaa yow gëmoo yàlla looy jooy ah nit ki dafa dee gëmal yàlla nag waaye da ngay gëm yàlla nag <laughs> exactly ñoom xam nga loolu moo ma ne si tubaab yi fii soo amee naxar mhm. duñ dañ dee bàyyi nga jooy ñu ne la jooyal soo paree maa ngi di la xaar mm-hmm. waaye ñun su nit commencé jooy rek nga naan ko noppil waaw jooy xanaa xanaa xanaa gëmoo yàlla a gëm yàlla la kay jugé la loolu moo lay tax nit ñi nekk nag di pressé affaire bi di mm-hmm. ko nëbb waaw parce que pour ñun émotion faiblesse la exactly mm-hmm. ba pare nag nga nekk nga am problème tamit bugg a nekk victime éternelle boobu <laughs> yaa ko laal <laughs> victime daa neex de yow nit ñi ñoo la def yow tout le nit ñi la def yow loo def <laughs> lu jar ngi noonu ah, loo def man ni ngay gis nii damaa divorcé léegi am na cinq ans mm-hmm. mais for the first time si suma life maa ngi toog di xalaat man lan laa def lan tax divorce bi am man ban suma suma ex mari li yu bëri yoo xam ma nekk di ma kale si suma dunda. sa kii bi sa micro bi ko coupé ko. nekk na loo xam ne suma mari daf ma ko daan wax xëy na daf ma ko daan wax ma ko daan wax. waaw sax doo ko accepté. su ma wéetee dama dee toog ma xalaat. mu ci man. te loolu effectivement pour faj su ma mhm. ak keneen. waaw dem parce que loolu kenn du ko. da de. Mhm. waaw rek mooy ori mu ko dee waxee nga dugg sa man la man la kan. man la <laughs> rek moo ko mun a def loolu. Mhm. da lay ak sa bopp te loolu yombul jàkkaarloo ak say défaut. war a nangu ni man mii bu dee fenkat nga nga nangu ni fenkat nga bu dee da ngay tricher nga nangu da ngay tricher bu dee rek ah waaw waaw waaw bu dee ah man moom du ma fen man moom du ma lii bu ko indi incha allah ñëwagul ku nekk dawes ma ne la di nga fen 1000 fen ku nekk naa ah ma ne la waaw ñaata yoon la sa dëkkandoo laaj dara nga ni ko aw ma ko te am nga ko ñaata yoon nga gis sa téléphone di sonné nga wuyu te ne aw ma jot te am nga jot eh, liste bi mën na gudd <laughs> manipulateur di jéem xam nga. jéem a ah, di manipuler te doo ko yëg. Ah. waaw. ñun ñëpp ko dee def. ñëpp koy def nekk ah. dafa yomba rek pour nga gis <laughs> def waaye yow li nga def doo ko dee gaaw beneen bi tamit mooy place one bi balaa maa. Uh-huh. balaa maa génn si ligne bi mooy suma am fa intérieur. Mm-hmm. léegi dama jël suma photo bi ba nekkee xale. ma mm-hmm. jël ko ma copier ko ba pare tay suma frigo bi. ndeysaan saa yu ma ubbee frigo bi rek xool photo bi ne waaw. xool xale bi nga nekkoon lan la amanke woon mhm. lan la suma waajur yi joxutoon bi ma nekkee xale mhm. chaque jour su ma bi ma gis photo bi rek suma xel bi dëppee mhm. xale bi la war a am ba tax mu dund li mu dund yépp dara so problème bi mooy 5D daf lay jàngal ne pour nga nekk nit ki nga bi nga doon foog nga nangoo faj xale boobu gaañu woon doon doon jooy mënuloo li nga nekkee xale da nga war a góorgóorlu nga jox ko sa booba. Mhm. parce que nit ñu bëri foofu lañ dee amee dépendance affective. war a sëy nag nga mhm. expect doomi jàmbur sa jëkkër mu mu enu responsabilité bu sa yaay ak sa bu ba defu doon ñëpp si yow. cas ah macha allah. te fekk moom mu ngi am yeneen soxla yoo xam ne pas intérieur bi mu ci moom moom tamit ngay xeex ak loolu. <laughs> yow nga bëgg koo jox sa responsabilité bés. <laughs> day metti de. waaw. dafa métti torop mais macha allah cours bi moom wax dëgg jàngee naa beneen bi mooy last one bi mooy tawhid cours yi Cheikh Ibrahima bi. Mhm. jàngee naa si yu bëree bëree bëree bëree jàngee naa si islamic microfinance mooy naka lañ jullit di moytoo riba. Mhm. ñun mi nekk si dëkki tubaab yi moom. foo jaar nga jànkoonteel ak problème yooyu noonu. Mhm. dëgg la waaye nga bàyyi ko xel tam lu am. mën bàyyi xel ba segg sa alal ba ba du rax riibaa ndax yaa ngi liggéey loo xam ne moom malheureusement. baax na kon mhm. man loolu moo nekkoon suma contribution aw ma jot ma ne xaaral rek ma. na solo suma benn mbokki Gambien dina ko déggal. macha allah moom tamit allah am na solo kontaan nañu trop vraiment. waaw ah, di la jaajëfal parce que sa a été un grand plaisir parce que nee naa ko formation bi moom bu kenn ne Gambien laa wala dégguma lii wala dégguma laa boo ñëwee tu vas te retrouver mu nekk nag lu am solo loo xam dañ ci war a bàyyi xel waaw donc euh, Mars ñu ngi lay dalal. ñu dalal waa WhatsApp asalaamaaleykum <laughs> sant yàlla. Ah, macha allah. parce que fi nga ñu jëlee ak fi nga ñu indee important c'est euh, essentiel en fait dans une vie. Mm-hmm. comme tu as dit euh, cinq dimensions. Mm-hmm. mais dafa am benn dimension bu essentielle. bu ci nekk mooy mm-hmm. bi. Euh, maanaam xam nga. ci àdduna ñu mhm. nekk nekk bu nekk mbala sa ruux ji ba ba ba fa àdduna jeex mhm. te yow doxoo sa mission mhm. loolu problème la sa mission de vie parce que dara dara jarul ci kaw suuf perte perte àllaaxira am dara jaru ko te loolu nga ñu aidé ci loolu nga ñu sauvé donc c'est c'est vraiment essentiel fii nii mënuñu fee témoigner ba wax réellement formation bi lan la il faut vraiment que képp ku instant yi nekk ci problème wala ci nag wala ci jaxasoo jaxasoo nga ñëw dugg 5D mhm. du bénéfice kese lay nekk jamais de la vie doo ko regretter parce que solution daf koy nekk comme Fatima du bari benn dimension xoolal su fekkee sax ñun suñu bopp raw na dañuy gis ne suñu relation avec mhm. xale yi encore passage encore ñi nga xam ne euh, commencé woon nañ def ci cinq d ah, commencé ko fa bopp dafa wax suk lu am solo yaa ngi koy waxantee aussi képp soo amul yërmande ci sa lépp loo amul maanaam en résumé yow munoo koo joxe <laughs> lépp loo amul munoo koo joxe mi ngi mel ne rek kay nga ne ma jox ma cinq cent euros su ma amul cinq cent euros sama compte comment je donner les cinq cent euros si je en fait je la mm-hmm. problème ya di <laughs> joxeloo amul. mere ku la deful dara teg teg fekk la ca. Mhm. Mhm. non wóorul wóorul Xadija sa micro bi sa micro bi wala ma wàccee la. Mhm. regret amu ci. amu ci amu ci vraiment bénéfice kese la. Mhm. bénéfice kese la donc vraiment man je le conseille vivement vivement képp ku ko mën a def. man mhm. sama xol dafa sedd tellement man man dama nekk en fait délégué parce que. da nga désintégré. man dama nekkoon avant Fatima dama nekk nit ku joyeuse la bien ñu laaj. di ma déglu mais joyeuse boobu dama ko tegoon ci. dara taxu ma woon ah, eh, dama doon kii rek dund noonu rek di dem lépp neex lépp neex. Mm-hmm. à cause de quelqu'un. kooku mm-hmm. tànk bi di doon am satisfaction rek man jotee léegi nag ba demee ba ubbi samay bët ba xool léegi nag boo boo ko tuddee yàlla suñu borom. Mm-hmm. da nga ciy boole sentir benn oyof en fait. parce que eh, comme yaa ngi koy wax sànq gis nga bu dee nit moo la tànk. suuf yi day metti alors que metti metti ndax a baax yoon la lépp mhm. la ñu yombalal ci religion bi parce que exemple bi ma mën a joxe yaa ngi koy wax sànq ci yonent bi salaay salaam bu xëy amul ndox rek yàlla wàccee tiit daf ñu defal tellement de dérogation sur les lois y a tellement de dérogation ah ba pare après da ngay gis ne metti finalement metti yépp ñoom ñoo ko teg suñu bopp. yàlla wax nañu ko de <laughs> musiba gu ñu daal rek ñoo ko teg suñu bopp man aaya boobu laa mënul woon comprendre <laughs> mënu ma ko woon comprendre parce que je me <laughs> boobu de développement personnel moo tax ma comprendre ko. développement personnel moo tax ma comprendre ko ba pare accepter ko parce que je me tout temps mais comment se naqar yi ñu daal ñu ñoo teg suñu bopp mais loolu mënul nekk xanaa du ndogal parce que yow da ngay dindi sa responsabilité jël lépp wépp ko yàlla nag ndogal yàlla la rek nga taxaw fële nekk victime <laughs> éternelle ah, ah. moo tax rien ne va ah, yàlla nag ñëw na la sa responsabilité ci la bopp. Mhm. mais nag foofu dañ naan fa tegg loxo bàyyi su ngeen ñëwee 5D Fatima da koy tojal. non non non ñu bàyyi leen foofu extraordinaire kenn mënu ko comprendre mais mënuñu ko résumer mënuñu ko résumer en tout cas kontaan nañ trop trop daal maanaam en gros vraiment ndekete mën ngaa am dund bu oyof bu neex ten bu jar vraiment nga ci perte sa àllaaxira daal en gros peut-être nag am na ñu ñu ñuy dégg dinañ ne kii waxam rëy na mais su ngeen ñëwee di ngeen comprendre jigéen ñi nga xam ne lu leen ne cuuc ñu dem uti sëriñ bu ngeen amee wujj dem uti sëriñ bu leen bu ngeen yaakaar ni seen jëkkër mu ngi nekk ci doxaan ngeen dem uti sëriñ jël góor teg ko seen centre dund waaw góor gi góor gi boo solo moom la boo lekkee moom la boo naanee moom la yow daal tu ne fais rien pour toi tout ce que tu fais c'est pour l'homme après yow nga bëgg nga heureuse ah, daa daa tee rêve xam ñun ñun on est très nombreux en pensant que ñu ngi suñu confiance en soi. parce que ñi ngi dem ñi ngi defar ba mu baax di kii ba mu tax comme ni ñuy waxee noonu. waaye dëkk dara baaxul lépp nga lépp nga saccagé. mais dañoo dañoo suul ak nekk ñu wàllal ko am ko. wallaahi par exemple euh, man man ngaa ñëw am am confiance mais en fait. ba xam nga confiance de soi estime de soi moo ko jiitu moo ko jiitu boo ñëwee mhm. nga estimé sa bopp baaxul maanaam nga def sous-estimation mhm. yow yow yow confiance bi fi mu ko teg baaxul baaxul boo ñëwee département ba mu jon gàcce la yow kenn dootu la xam nga confiance en soi ku ne mën na ko am il suffit juste nga mën toog am nga confiance ci aspect boobu yaa ngi liggéey di fay ko xaalis am nga confiance parce que confiance en soi c'est les actes que tu réalises Euh, quand tu fais les choses et que tu les preuves concrètes def nga xam nga ni yow am nga capacité réaliser certaines choses mais estime de soi ak valoriser suñu bopp loolu moo manqué sénégalais yu bëri le fait que nga bëgg sa bopp estimer sa bopp jox sa bopp valeur bi la yàlla jox loolu nag mooy suñu problème ñun waaw te loolu soo ko amul foo jëlee confiance. sama yooyu yëpp bu ngeen ñëwee Fatima dafa war a ci tukkal noo xam ne da ngay nuuru ci géej <laughs> non dama fa laal te nag Fatima bugguma euh, wax te waxuma tamit ci kuuru sexualité yi wax ci yàlla dañ naan Sénégal séduction ñu def ko Sénégal bii wu ci di bàyyi leen ñi ngeen yoroon yëpp kuuru neex neex gi ñëw ci Fatima Zahra dal ci coaching non neex neex yi du nuñ ko doon hmm. mi ngi mel ni rek ñu jëloon autoroute bi di ñu ci national <laughs> ba pare ba pare yor sa pouvoir di ko di ko diriger fu mu la neexee. xam li gën a metti mooy sénégalais dañ jàpp ni séduction wala sexualité dañ jàpp ni c'est juste jënd ay luisette décorer sa néeg. ah def jënd ay aphrodisiaque defar ba mu baax te fekk na yow da ngay subir sa sexualité tu le subis mais tu ne le vis pas. waaw te nit ki énergie interne bi ngay dégager mooy yaa ngi def les choses après yaa ngi xaar waaj na la yu peg nga fi yii defar nga ba mu baax léegi bu la ko waxul yow presque wala mu wàcc am beneen kanam fa changé kanamam yow li nga préparé woon yépp yàq nga ko parce que jàpp nga ni comme moom mi ngi ko defal bi mu wàccee il n'est pas heureux pourquoi nga parce que yow joxoo sa bopp valeur ba nga jàpp ni yow waroo mën a dund neex-neex même bu waa ji meree non non non moom moo tax nga koy def lépp ngay jël sànni ci pëlu mbalit mi mais bu fekkente ne da ko defoon pour toi pour sa valeur pour sa estime da nga ciy am fayum yàlla parce que yow après xam nga ni lii ngay def nii moom même bu fekkente ni il est dans tous yow xam nga comment faire pour dundu sa guddi ba mu neex wala dund say say moment ba mu neex te yow euh, humeur du influencer yu ci sa humeur tu n'es pas conditionné en fait. parce que le fait que yow moomoo say émotion tu es conditionné par sa jëkkër bu wàccee kontaan nga kontaan su wàccee mer nga mer et ça c'est désastreux te jigéen ñi ba loolu def leen di dal te nan ngay amee couple bu épanoui su fekkente ne yow tu n'es pas en mesure ki wàcc indi mer nga dindi ci moom meram wala boo gisee nii moom laaju la aide il n'a pas besoin de ça <laughs> nga avancer sa yoon tu as autre chose à faire <laughs> et que dund sa neex mais duñ ko def. ba pare tam boo jëlee ko kooku Fatima oustaz bi ñu expliqué la pour ñu ko a clair mm. euh, la des choses qui bien fait santé psychologique Euh, facteur bu yooyu noonu yëpp nag bu indee et c'est immotive donc yow nekkoo luy subir comme ni nga doon wax ngay dem di subir rek di dem pour dem donc y a vraiment beaucoup d'incohérence et d'erreur euh, euh, d'incohérence donc vraiment côté boobu moom ce ah, <laughs> côté bii moom daa am séduction ak séduction de <laughs> y a séduction et séduction waaw parce que tamit gis nga asu ah, traumatisme yu bëri yi jigéen di dund traumatisme sexuel nga gis jigéen ñu bëri dañuy dund di jàmbat non sama jëkkër dafa mel nii sama jëkkër moom dafa xër ci mbir yi sama jëkkër du ma noppaat wala des fois sama jëkkër amu ci envie et yow nga nekk ci délire boo xamante ni yow il suffit